mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy farataal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di baaxoo di déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dara ki nga xamante ne moom moo di docteur Alassane Mbengue docteur Alassane Mbengue nekk chercheur foofu ca institut Pasteur bu Dakar docteur Mbengue ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM waaye laata loolu ñu ngi lay wu bu baax a baax ndax koor gi metti na yoon bi xat na mais terewul lépp ngir mën a uyu ci suñu invitation bi le docteur ñu la naan dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM. jaajëf déjà di leen remercier soxna Fatou et puis waaye euh, jërëjëf ci invitation bi ça m'honore d'être la aujourd'hui mm-hmm. et puis coono ji ko bokk je pense que fi ñu toll nii voilà ñu ngi si koor gi. Mm-hmm. et puis waaye avec plaisir pour répondre ci questions yi nga xam ne moom lañ yaakaar ne dina jëriñ suñu askan. d'accord euh, docteur Alassane Mbengue ñu commencé ci li nga xamante ne moom moo di peut-être bokk na ci li nga xamante ne jot nga ko gëstu muy biologie médicale tey xam naa terme boobu suñu auditeurs yi ñuy farataal di déglu même bu fekkente ne expression bi lourdul mais baaxoo wuñu du dégg li tey bu ñu waxee biologie médicale euh, concrètement ñi ñuy déglu lan la ñu mën a xaar comme réponse waa biologie il faut ñu comprendre lan mooy définition bi bio mooy science su la vie en réalité loolooy définition biologie donc bu ñu nee médical aussi c' est toutes les études maanaam jàng yëpp bi ci ko wër bi nga xam ne lépp loo xam ne si wér gu yaram. Mhm. dinañ ko mën a def moo tax ngay dégg ñu naan analyse médicale par exemple institut Pasteur bi ñu nekk am nañ section boo xam ne ñoom loolu la ñuy def quoi mhm. maanaam bépp jàngoro nan lañ koy. voilà defee recherche ba ca waar pour mën a xam lan moo dal nit ñi. Mhm. donc loolu mooy biologie médicale. Mhm. Et en plus de ça man je travaille sur le paludisme et donc avec plaisir pour en discuter avec vous. d'accord euh, jàng bi xam naa ne médecine moom bu ñu ne médecine rek jàng bi guddi na métti na ñu bëggoon xam ndax da ngay def euh, ce parcours normal avant que ngay spécialisé wu. yee sant yàlla man Limaamu Laay laa jànge donc euh, voilà j'étais j'étais en biologie foofu aussi ak yeneen discipline yi fa amoon mm-hmm. après ñëw université nekkoon euh, science naturelle voilà mes licences après am opportunité dem France euh, bi ma demee France nag laa gis différence bi entre étudier fii ak foofu parce que voilà y a un gap qui est énorme considérable et après man sama objectif bi avant may jóge Sénégal ça c'était appliquer ko à quelque chose donc palu la woon donc sant yàlla après j'ai fait ma thèse à Montpellier l'université de Montpellier jóge foofu liggéey États-Unis aussi à l'université Université Notre-Dame. Mhm. pendant quatre ans ci cinquième bi laa ñibbi si rejoindre Amadou Alpha Sall ak équipe am à de Dakar. wax nga ko ci sa biir wax euh, li nga fi gis bi nga nekkee Sénégal ak bi nga demee bitim réew euh, mu am différence apparemment différence bi euh, daf la marqué tey différence bi si la par rapport ak plateau médical bi la wala par rapport ak li nga xamante ne moom moo di ressources humaines différence bi concrètement c'était par rapport à quoi. ressources humaines la ak xam-xam Euh, finalement biologie c'est pas hyper compliqué comme ni ñu ko yaakaaree c'est juste que mettre en place des modules ak xeetu njàngale moo xam ne da lay permettre tey yi nga wax waxi ADN comprendre dynamisme euh, ADN yi loolu mooy indi sax si waxi Covid on a vu les variants yooyu nit ñi ñu ngi koy jàng di ci gëstu di ci am xam-xam donc ñu loolu la ñu def à l'Institut Pasteur aussi mm-hmm. mais ci kaw loolu aussi dafa am pàccum éducation boo xam ne ça va être déterminant pour ñun ñi nekk Afrique actuellement mm-hmm. parce que gis nañ ne feebar yi moyen la déjà mm-hmm. et pour répondre oui fii am na gars yu am xam-xam ah, macha allah ñoo xam ne xam nga ñu ngi développé wu aussi di def ay gëstu euh, pour xam matériel nan lay évoluer yooyu yëpp ay xeetu njàng la. Mhm. yoo xam ne macha allah Sénégal tey jii ñu ngi ciy góorgóorlu quoi. Mhm. justement dañuy des ci wàllu woowu pourtant yaa ngi wax ressources humaines mais fii bon am nañ fi ay médecins yoo xamante ne ay médecins yu xarel yu xarañ lañu autant pour moi mais il arrive aussi que euh, am na yenn euh, maladies yoo xamante ne jóge fii dem ba bitim réew ndax loolu aussi tamit euh, quelque part xawula gàllankoor suñu système de santé de manière générale. waaw xam nga wér gu yaram la ku nekk li dal sa xel ngay def. Euh, donc loolu ay choix personnel la mais bu ñu sañoon tey jii ñu am outil yépp pour mën a def diagnostic yi à temps jéem a comprendre mécanisme yi xool aussi côté thérapie ak intervention lan lañ mën a def au niveau local. Mhm. mais xam nga ne ku sañoon sa wet sa kër ngay fajoo. Mhm. ba la choix personnel la tamit des fois mais. Euh, il serait préférable de xool tamit experts yi nekk Sénégal parce que ñun am nañ ay macha allah ay gars yoo xam ne ils sont bien et puis euh, jéem leen jàppale ci loolu aussi. Mhm. ñu jege population bi. Mhm. Euh, justement dañuy taxaw foofu ba léegi médecin biologiste bi ñaata at ñaata année d'étude donc la war a capitaliser ba moo mën a dégg expression bi peut-être médecin biologiste wala docteur en biologie hein? donc oui j'ai eu mon bac bi ma amee bac ba pare après dama def quatre ou cinq ans yoo xam ne pour spécialiser en master. master et après defaat ci yeneen ñetti at wala ñeenti at yoo xam ne euh, pour sama thèse mm. donc foofu ngay amee ce titre quoi donc on va dire comme médecine la un peu quoi c'est que tu plus dix douze affaires yooyu quoi et euh, donc euh, voilà boo foofu nag man nga def des études postdoctorales c'est comme si job la boo xam ne da ngay confirmer sa doctorat au fait et loolu maa ngi ko defee woon Amérique et après da ngay commencer mettre en place des un laboratoire mm-hmm. am ay étudiants leen encadrer yoo xam ne ñu ngi thèse actuellement et yeneen master mhm. donc yooyu yëpp da aussi day ñëw fekk si euh, programme d'éducation bi nga xam ne moom moo fi am mhm. c'est-à-dire jël ressources humaines yooyu commencé leen tàggat comme ça ñu dem mission di xoo commence commencé comprendre wala gëstu dynamisme mu feebar yi e loolu laay def ak sama étudiante ak yeneen collègue aussi la différence entre ce qui se passe ci dëkk bi ak feneen fi nga bëgg a dem capitaliser expérience. bien sûr bien sûr à chaque fois je pense que ay scientifique lañ ñun ça veut dire quoi on observe on analyse on émet des hypothèses. Mm-hmm. et après si kaw loolu nag ngay am benn modèle de comparaison après nag euh, lépp loo ti liggéey day laajaat nga toogaat comparé ko ak beneen système. Mm-hmm. loolu mooy évolution bi rek li am aussi si micro-organismes yi on verra que à discussion bi on fait face souvent à des micro-organismes yoo xam ne dañuy évoluer euh, loolu moo waraloon variant yi ñuy dégg si Covid ak yeneen am na si yeneen jàngoro am na si ñun ñii di doomi aadama. Mm-hmm. être la ñu wax quoi loolu mooy nag mooy biologie pour devenir euh, pour revenir à mm-hmm. euh, xam naa ñi ñuy déglu dinañ ne euh, tey moom am nañu benn gan boo xamante ne macha allah macha allah dafa mel ni xarañte moom mooy loolu parce que il a eu affaire à pas mal de pays certainement pour plus waaye tamit pour bu découvrir après mu mën a dellu si ci Sénégal ngir mën a def expérience bi nga xamante ne jot na ko vivre médecin biologie gynécologiste lan lay def concrètement ci structure médicale. Euh, pour préciser je suis chercheur. donc euh, chercheur bi chercheur biologiste euh, man en fait sama spécialité paludisme la. donc bi may signé à l' institut Pasteur c' était pour comprendre xam nga boo seetee si jamono doon nañ jël chloroquine daan nañ jël nivaquine ñun suñuy morom boog mais yooyu déggatuñ ko. Mhm. donc la moo ko waral c' parce que parasites yi dañoo dem ba garab yooyu mënatu leen rey. Mhm. loolu mooy phénomène de résistance. Mhm. donc boo xoolee si hôpitaux yi tamit di nga dégg antibiorésistance. c'est la même chose c'est que organisme yi dañuy évoluer ni leen di garab mu leen rey tey ñoom mën nañoo évoluer ba dem ba résister donc man loolu mooy sama liggéey à l'Institut Pasteur donc mais loolu boo koy def ci àll bi nga koy defee xool zone yi nga xam ne région yi nga xam ne dañoo am palu ba tey même comparé ko ak nord bi nga xam ne Sénégal tey ji amul amul palu donc indicateurs yooyu yëpp moom la ñuy utiliser di wax ne bon avancé nañ tey ji ci palu wala dellu nañ ginnaaw et ce sera un peu intéressant qu'on voie les chiffres ci secteur bi nga nekk ngay liggéey en partenariat avec euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy institut Pasteur wax nga ko bu ñu gënee tuuti dañu doon jox euh, nivaquine wala chloroquine mu nekk euh, médicament bu tuuti mais wax xat nga ñu ko doon naan deux fois dans la semaine déjà des fois dañ la doon mettre sax au coin di la xool ndax di nga ko naan wala doo ko naan tellement que médicament bi day metti tey bu ñu demee ba nga xamante ne médicament yooyu am na peut-être yu ko gën a mën euh, xeex jàngoro bi di paludisme foofu aussi mun nañ jàpp ne am na ay avancées yoo xamante ne eh, def nañ ko ci wàllu woowu. oui bien sûr euh, xam nga recherche mooy loo xam ne souvent day jël temps. Mhm. parce que lépp loo ciy def comme li ma doon wax la quoi da ngay émettre ay hypothèses ne ok garab bi baax na ba tey balaa nga xam ne garab bi baaxagul ça veut dire que ne essayé nga ko voilà utiliser nañ ko si ay patients. Mhm. ñu gis ne par exemple dañ doon wér au bout de trois jours wératuñu loolu yëpp si science bi ñuy def la bokk. Mhm. loolu moo lay jox premier indicateur que ne garab bii tey doxul. beneen aspect bi mooy xam ne am na ñeneen expertise yoo xam ne ñoom seen liggéey mooy créer ay molécules yu bees testé ko mais loolu boo koy nit ki donc si sa laboratoire ak si say parasites yi circulé nga koy mën nag loolu mooy sama liggéey mm. c'est-à-dire jëli parasites yi nga xam ne euh, ñu ngi circulé entre les gens chez les patients maanaam bu ma demee hôpital tey jii képp ku am palu mu signé d'accord ne mën nañu utiliser son sang pour gëstu palu ñu jël sang am lañ cay def mooy xool est-ce que am na ay marqueurs génétiques yoo xam ne day indiquer résistance par rapport ak médicament yooyu ñu wax ba tey ba pare mm-hmm. donc chloroquine lañ doon wax ay jamono fi mu toll nii artémisinine la ñuy wax mm-hmm. loolu dégg nañ ko sax ci Covid bi mm-hmm. mais artémisinine euh, moom c'est une molécule boo xam ne bu duggee sa yaram déjà du benn molécule ñaar la ñu jël boole ko pour rek mën a rey parasite bi boo ko amee boo amee ci biiru daal donc ce qui se passe mooy que ne moom c'est un fast acting molécule cest à quoi bu duggee sa yaram six heures après day disparaître donc en six heures war na mën a rey parasites yi te xam nañ ne mën na nekk léegi nag li xew mooy que euh, comme chloroquine comme nivaquine dafa am ay poches des îlots de résistance mm-hmm. loolu nag souvent mm-hmm. euh, bi ñuy utiliser actuellement recommandé ko par le programme national mm-hmm. am résistance boo donc ba léegi mu ngi bëgg a yàgg te yooyu feebar la yoo xam ne wala phénomène la yoo xam ne day law ci société bi c'est-à-dire que tey bu ma jógee jógee Asie mën naa indi yow Sénégal te duma am ja symptômes yu bari mhm. parasite boo xam ne dafa am mutation yooyu di conférer résistance mhm. ñun nag suñu job mooy wër parasite yi nga xam ne moo nekk si yow tey jii passé si sa doom wala si sa rakk nekk ci suñu biir mhm. ñu caractériser leen donc loolu mooy suñu liggéey yoo fait a comprendre évolution wu euh, parasites yi aussi voilà euh, sànq doon wax bi covid bi génnee gis nañ ne eh, ñu ci bëri chercheurs yu ci bëri ku ci me ku ci nekk yaa ngi bëgg a mettre en place lenn loo xamante ne da ngay daal di faat wala nga xam virus bi ci dû à quoi wala li nga xamante ne moom moo koy eh, dindi carrément donte ba léegi yegguñ yeggaguñ ca nag mais n'empêche les recherches continuent mu mel ni jamono bu nekk ak lu ciy xew waaye jàngoro bu nekk ak li nga xamante ne moom moo koy faj spécifiquement même bu fekkee recherche bi day yàgg. oui oui non c'est c'est vrai ku nekk da am sa spécialité. Mm-hmm. mënoo ne fépp tu vois parce que xam-xam la boo xam ne dafa jéggi dayoo tey jii donc euh, li ci war mooy ku nekk danga am sa expertise du wees du du ça n'empêche pas que ne tey jii mën naa collaborer ak waa pôle virologie man par exemple euh, Tamba ak Kédougou pendant deux mois mm-hmm. yoo xam maa doon def surveillance Covid bi avec mm-hmm. d'autres collègues bien sûr des virologues mm-hmm. donc tey jii xam-xam loolu lay jariñ aussi ci waa transversalité la c'est-à-dire que ne du ma yem rek ci li nga xam ne moom laa jàng jii mais on parle biologie aussi te modèles yi dañoo xaw a xellame mais on parle de virus coronavirus et on parle de Plasmodium falciparum mm -hmm. donc c'est deux organismes yoo xam ne génétiquement bokkuñu daal mhm. même boo seetee cycle de vie yi ñu am xam nga bokkul par exemple palu symptômes yi nga xam ne moom ngay am c'est quoi mooy parasite bi bu duggee ci sa globule rouge yi mm-hmm. que virus yi yeneen phénomène la quoi mais yooyu yëpp xam-xam la et aussi discuter xam nga curiosité aussi xam nga loo ci avancer nga émettre comme comme hypothèse mm-hmm. dem ci terrain bi vérifier ndax am na loolu mooy suñu job en réalité daily loolu la ñuy def tous les jours quoi on va dire d'accord ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy sa domaine sa gëstu yu bëri ci ci paludisme nga koy nga koy farataal di def lan mooy expliquer choix wu palu bi am na bu weesoo palu am na yeneen jàngoro yoo xamante ne boobu ba léegi mu ngi fii ay jàngoro périodique la tey pourquoi spécifiquement nga choisir def ay recherche def ay tournée de sensibilisation ngir askan wi certainement gën a xam lekk jàngoro boobu. moi j'ai grandi à Kolda je remercie mes parents aussi parce que mon, mon père était enseignant ma mère nous a éduqués yow bi ñuy màgg rek da nga daan gis beaucoup de cas de paludisme et puis ñun ñëpp xam nañ koo xam ne wàcc na liggéey ndax paludisme waaw yooyu mooy seen motivation pour après boo demee ba xam nga màgg di réfléchir si yenn dynamisme man pour pour moi personnellement c'est une histoire mhm. moo tax ma choisir ba may jógee Sénégal xamoon naa ne palu def yi mhm. donc euh, bi ma ne damay dem outil ay ay yoo xam ne tey jii dina ma permettre ma am xam-xam et loolu yëpp mën a appliquer ci paludisme et effectivement loolu laa def donc voilà xam-xam du doy mais euh, je me rappelle plus exactement de la question mais daa xam naa ne vrai gëstu la quoi. Mhm. te loolu ci pathogène yëpp nag. Mhm. tey waxuma sax tey affaire diabète maladie chronique yeeg yu ni mel donc ku nekk da nga am sa poche de spécialité teewul nag ku nekk aussi ak sa niveau de curiosité ak sa niveau de xam-xam man bàyyi bàyyiwuma yenn yi quoi ça veut dire que ne tey suma xalaatee si palu buñ ma woowee Covid suba je suis prêt. Mhm. buñ ma woowee si diabète suba maa ngi ci ut xam donc loolu yëpp nag gëstu la daal. définition chercheur gëstukat. Mhm. donc euh, voilà xam-xam bu dul jeex la daal. Mm. loolu yëpp gëstu la mais en tant que chercheur dañu des ba léegi ci wàllu woowu ah. euh, xam naa ne wax nga ko Kolda nga nga nga nga bàyyee ko foofu nga juddoo foofu nga màggee par xam naa ngay def say études supérieures à l'intérieur wala à l'extérieur du Sénégal euh, tey boo ñu den def benn taxaw jàngat ci dëkk yi nga xamante gox goxaat jot nga ko fa def ngir mën a tourner par rapport ak paludisme bi ban impression nga gënoon moo la njëkk attiré donc le fait que tey jii ba léegi on est au vingt et unième siècle mais n'empêche palu mu ngi fii particulièrement ci yenn zone yu ñuy wax les zones reculées. waaye boo xoolee par exemple wax ci Sénégal sax laay wax déjà du ma sori euh, boo xoolee carte de distribution maanaam ba tey jii boo xool ci xayma ñaata nit ñooy am palu ci téeméer wala junniy nit. Mm-hmm. zone yi nga xam ne Kédougou ñoo fi moo tax sama station lu ci bëri Kédougou la ñuy dem mm-hmm. euh, nga yéeg loo gën a yéeg moins il pleut ñuy jëm nord foofu y aura moins de cas de palu loolu moo tax tamit il faut remercier il faut dire que ne euh, programme national ak ñooñ liggéey nañ liggéey bu voilà boo comparé par rapport ak Kolda dans les années 2000 tey jii euh, y a beaucoup moins de cas mm-hmm. mais y a encore des cas de palu te bu élimination nag mooy zéro cas pendant un ou deux ans yoo xam ne amuñu benn cas mm-hmm. loolu c'est très très compliqué mm-hmm. donc est-ce que ñu ngi def lépp pour euh, pour loolu élimination moom c'est un gros mot quoi mais mais am que euh, Algérie ils ont eu zéro cas depuis daaw daaw jeeg Salvador en Amérique latine ñoom tamit ñu ngi confirmé et voilà donc am na njëkk yu koy def mais éliminer palu c'est pas facile ah c'est parce que on est face on est en face des micro-organismes yoo xam ne dañuy évoluer rapidement mm-hmm. te lool yëpp boo ko amee doo ci xam dara mm-hmm. donc suñu suñu suñu job lool la tamit jéem a comprendre mécanisme de résistance et de survie sax laay wax de ces micro-organismes loolu moo passionnant si si recherche aussi Euh, tey euh, état bi def na ci ay jéego wax nga ko éliminer palu nekkul lu lu lu lu yomb la preuve euh, à bu bu nawet di farataal di jot dañuy pulvériser yenn quartier yi nga xamante ne dafa bëri yoo dañuy distribuer distribuer ay moustiquaires imprégnées ne serait-ce pour dire que ñoom sax xam nañ ne phénomène bi yombul tey ji lan nga jàpp ne moom la ñu war a gën a def ngir maladie bi éliminer ko amaana ma yombul mais mu gën a reculer parce que quoi qu'on puisse dire euh, spécialistes yi bu ñu la joxee ay chiffres euh, les chiffres font froid au dos. waaw waaw t'as raison maa ngi doon xool rapport euh, mhm. deux mille vingt et un bi bu OMS euh, ñi nga xam ne PNLP par exemple mooy def liggéey bi et puis aussi di remercier ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci centre de santé yi sori. Mhm. ñooñu ñooy jox résultats yi tey jii les euh, au programme national de lutte contre le palud sans ñoom ce serait très très compliqué. Mhm. donc chiffres yooyu bu ñu ko amee dañ koy transmettre waa OMS am ñoo xam ne dañ ciy liggéey tey yooyu mooy indi carte de distribution yi. voilà léegi boo xoolee ku mel ni Dakar tey jii on te dira que mais voilà ñi fi am palu parce que seen immunité dafa wàcc c'est une immunité labile maanaam yow tey jii loo gën a dékku euh, pikiiru yow sa immunité gën a répondre bu baax par rapport ak loolu mhm. maanaam tey jii pour nga développer euh, cas yu gën a grave yi c'est très compliqué mhm. le fait que ñu nekk dakaar amatuñu euh, ay ay piqûres de façon régulière ça implique quoi que suñu immunité maanaam li ñuy protégé par rapport ak palu day baissé mhm. donc ku fi am cas de palu ça peut être très grave très rapidement mhm. te loolu tamit boo xoolee si décès yi ñuy am voilà jaale ñëpp nag mhm. li ci ñi ci am euh, souvent zone yi nga xam ne bëri ñu palu foofu la nit ñi parce que seen immunité dafa wàññeeku ñooñu ñooy gën a gaaw wàcc liggéey wala ñu développer des cas graves donc palu dafa am ñaari cas les formes simples boo ko amee fièvre rek lay doon mooy sibiru bi ñuy wax en général léegi nag am na beneen cas boo xam ne mooy les formes graves ça loolu ça vient bu fekkee traité woo ko. Mhm. erreur de diagnostic parce que voilà palu bi bëriwul donc nit ñi duñ ko xalaat mais ay TDR am na fi. Mhm. donc euh, ak du sang capillaire tu veux savoir mais. dafa am juróomi espèce yoo xam ne tey ji ñooy infecté nit di la jox palu. Mhm. TDR yooyu yu ci bëri plasmodium falciparum parce que boobu moo ëpp moo ëpp lu muy rey. Mhm. mais am na yeneen ñeent yoo xam ne muy plasmodium vivax plasmodium ovale plasmodium euh, malare. Mhm. ak plasmodium nolézae qui est une zoonose maanaam ci golo lay jógee ñëw ci nit. xam nga yooyu tamit yeneen question yoo xam ne il faut ñu intégrer que est-ce que TDR yi ñu yor mën nañoo gis yooyu yëpp. mën na war na bokk sax ci élément de recherche. falciparum dañuy jéem a xool yeneen espèces yi euh, xool ndax TDR yi ñuy defar mu ngi leen di xàmmee ou pas yooyu yooyu mooy suñu liggéey euh, chaque jour. Mm-hmm. Euh, wax nga ko palu ñaar la boo xamante ne xam naa moom mooy forme bu simple bi nga xamante ne askan wi moom lañu ñu a xam mais beneen forme bu compliqué bi bi nga xamante ne certainement bu dalee nit mooy expliquer. muy déliré xam naa mooy bu ñuy tuddee neuropalu tey jii eh, ci ñaari forme yi en tant que gëstukat en tant que koo xamante ni dafa yëngu ci wàllum recherche particulièrement ci palu au Sénégal spécifiquement euh, ban ban ci ñaar yooyu ban la ci population bi di gën a am. oui ça dépend encore une fois fan ban zone nga nekkee. waaw boo nekkee ci zone boo xam ne tu es sujet maanaam di nga day faral garab yooyu dañoo bëri ñu lay matt daal da am immunité donc foofu même boo ko amee genre si biir biiru rek lay doon. Mhm. loolu mooy paludisme simple boo traité wul nag ce qui se passe mooy que ne le coma cérébral mën na la daal moom mooy neuropaludisme bi nga wax. Mhm. ce qui se passe c' est que globules rouges yooyu nga xam ne ils infectés. Mhm. dañuy coaguler ñoom ñu nekk seen biir on les appelle des rosettes former ay îlots de de globules mhm. infectés et donc ñooñu ñooy boucher ce ce ce bi. loolu moo tax ñu tuddee que neuropaludisme te xam nañ ne un cerveau non irrigué en sang pendant trente secondes doy na pour faat nit. donc loolu mooy neuropaludisme en fait da nga am paludisme dellu si sa biir deret mhm. après dem ba former ay îlots des rosettes ñu ñu lié ci sa micro vaisseau mhm. et du coup ce qui se passe c'est que sang bi waroon egg sa cerveau daa am lu koy bloqué. Mhm. parce que yoon la rek daal léegi loolu bu kiiwee moom mooy indi neuropaludisme donc mais pour répondre kan mooy gën a am neuropaludisme ak yooyu sa dépend si environnement bi. sànq wax nga ne écosystème c' est très important. Mhm. beneen bi mooy aussi sa immunité. Mhm. beneen bi mu mujj mooy diagnostic bi. donc c' est un ensemble boo xam ne euh, que ce soit la personne. bi nga xam ne moom tey jii moom moo am palu mm-hmm. dëkk ci soit au nord au sud information yooyu yëpp mooy la perception de la maladie mm-hmm. donc loolu dinañ ci waxaat aussi moom lay def la perception de la maladie dafa des am déet non de elle diffère au fait d'une personne à l'autre tey jii yow ni ngay comprendre palu bi parce que yàgg nga ci liggéey bi yaa ngi commencé comprendre yenn mécanismes yi mm-hmm. tey jii suñu sa mère par exemple est-ce que noonu la koy gisee sa maam est-ce que noonu la koy gisee ka ne Kolda est-ce que noonu la koy comprendre donc la perception de la maladie il faut que ñu wax que c'est quelque chose d'individuel et de communautaire. Mm-hmm. moo tax nag xam nga yeneen pàccu liggéey bi mooy il faut ñu jege suñu population tey jii mënoo teg stratégie te inclure ñi nga xam ne des euh, stratégie boobu si ñoom la jëm. Mm-hmm. donc la communauté elle occupe une place importante mm-hmm. déterminante euh, voire même loolu mooy indi chaque succès. si stratégie yi ñuy def mais encore une fois il a des experts qui comprennent ça am na job boo xam ne ñun duñ ko gis peut-être mais ñu ngi ci àll mm-hmm. bu fekkee système pyramidal lañ am ci santé ñooñ tey jii système santé Sénégal mm-hmm. mm. y des experts ñi ngi def seen liggéey mais bu la comprendre bu baax il faudrait aussi que ñu gën a mettre l'accent euh, sur aspect sensibilisation ak communication non mooy secret bi mm-hmm. tey Eva Marie Coll Seck gis benn livre bu mu bind xaw ma woon sax ne am na jotu bind loolu mais j'étais stupéfait quoi ak ak malgré expérience am ak ñàkk jotam mm-hmm. mais clairement ce qu'elle dit depuis soixante dix huit am na ay ay jéego yu ñu def yoo xam ne clairement waaw communauté bi ça tourne autour de la communauté mm-hmm. et loolu c'est important nit ku nekk dañ ko war a vulgariser c'est un travail de titan nag en ah, yombul mais xam nga boo ko waree traduire si làkk yëpp mm-hmm. boo ko dee waree def si yenn ki donc ñun si suñu bopp en plus de notre bu ñu demee si mission si terrain yi ñun ñoo war a jéem a jàppale askan wi si loolu aussi. Mhm. voilà euh, tey nga nekk euh, chercheur ci institut Pasteur xam naa ne lépp jëm ci wàllum paludisme soxal na la tey bu ñuy wax euh, identification des challenges face à l'élimination du paludisme fii ci Sénégal concrètement lan la wëndu. waaw mooy wàññi paludisme bi ci région yi nga xam ne ñu ngi faire face à ça. Mhm. déjà loolu mooy premier truc bi te loolu encore une fois am na jéego yu mag ci ne campagne de sensibilisation yi si la bokk euh, campagne de distribution de moustiquaires mais moustiquaires mu ngi fi bëgg a yàgg nag. Mhm. voilà ku nekk lan lay def ci moustiquaire am loolu vraie question bi tey jii tu vas waaw nord du Sénégal sa je le dis je l'ai vu c'est que am na suñu mbokk yi nga xam ne ñoom seen seen troupeau ñoo leen gën a intéressé ñoom la ñuy muur <laughs> jar na ree mais pour mom pour ñoom c'est c'est un réflexe mm-hmm. tu vois mais nan la ñuy discuter ak ñoom ne leen ok moustiquaire bi xam pourtant xam nañ li moustiquaire bi jariñ ah. mais ku nekk ak sa priorité tey jii donc bu ñu bëggee xeex euh, paludisme yi par section la c'est-à-dire que ne ñi ci suuf dañuy wàññi déjà parce que mënoo ne ci combat yëpp nga yéeg ci centre bi ne leen ok ñiy jóge si suuf mën nañoo indi paludisme ñu xam ko ba ci ay dakaar ak yu ni mel nga yéeg ci noor bi pareil aussi c'est la même chose lan moo tax ñuy am moustique est-ce que am nañu ay moustique donc loolu tamit di beneen job boo xam ne entomologiste yi ñoo koy def mooy insecticides yi et on a vu qu'avec loolu moo doon problème mhm. c'est que la boo xam ne tey jii boo ko dogee rek yooyu dañuy commencé amaat feneen te ren gis nañ ne yooyu dañu paludisme dafa yokk mhm. ren par exemple et ça on pense que c'est le résultat de Covid mhm. ak yeneen yoo xam ne tamit euh, peut-être liggéey bi des na mhm. voilà euh, euh, paludisme dafa yokk parce que ñu bëri jàpp nañ ne bon c'est vrai que Covid dafa ñëw mu nekk virus boo xamante sur le plan international di ñoom ñoo ko mën a xeex particulière rawatina ñun ñi nga xamante jàpp nañ ne dañu nekk pays en voie de trop l'accent peut-être sur budget bi lu ñu waroon def pour xeex jàngoro bi c'est vrai que lu bees la lu la bett mën la mais eh, yokk bi ñu bëri dañ ko def euh, dañu def genre comparaison bi ils ont mis trop l'accent dañu focaliser wu euh, ci xeex euh, jàngoro bi di Covid alors au détriment des autres particulièrement le palu ba moom mooy expliquer apparemment le fait que lim bi ñu am ren ci le taux taux bi dafa bëri am na sax taux de létalité xam naa dañu am les chiffres en tête mmh. mais lim bi yokkoon na na taux de létalité boo xamante ne apparemment Sénégal mënu mësu ko woon am euh, bi ñuy xeex palu ba léegi. Mm-hmm. non je pense pas que ne egg na yenn niveau yi mais effectivement boo xoolee ren ji ci rapport yi génn. Mm-hmm. nombre de cas yi yokku na on est passé euh, de cinq cent trente quatre mille à six cent vingt mille euh, cas. Mm-hmm. et donc décès yi tamit yokku na mais boo xoolee ay Nigéria ak yu ni mel ñoom ñoo ils ont vingt six pour cent des décès en Afrique laa lay wax donc ñooñu nekk ci zéro virgule sept pour cent de décès boo xoolee ci maanaam dëkk bi yëpp ah. ça ça veut dire quoi que ne tey jii sur mille personnes am na trois cent yu am épisode palu Kédougou nga dem dans le nord sur mille personnes il a zéro cas par exemple. Uh-huh. donc yooyu yëpp la ñuy tënk ne ok pourcentage bi palu tey lii la si uh-huh. junni nit ñi ñoo ci am palu yu ni mel mais boo weesu bu weesoo loolu li nga doon wax sànq par rapport ak Covid xam nga jàngoro bu beesee ñëppay tiit loolu. loolu loolu depuis ci peste depuis ci yaakaar naa yàgg na si histoire. Mm. c'est-à-dire que ne ba pare yooyu bu amee il faut ñu am ay cibles. c'est-à-dire que nit moo mel noonu quoi xamul lan la et c'est normal que ñu mobiliser woon ressources yi am yëpp def ko ci Covid parce que boobu ñun ñëpp jaaxle nañ nag voilà mais loolu mooy science bi mm. c'est-à-dire que ñun début bi dañu yaakaaroon na ñun ñëpp tey dañuy wàcc liggéey ndax Covid mais yàlla suturaal nañu. gars yi commencé woon nañ sax ku gis sa morom di ko daw. mais c'est ça c'est ça ku nekk tey ji fa lañ toll. on voit que ne immunité africain yi mu ngi leen protéger contre Covid. Mhm. recherche bi nag foofu la nekk te loolu mooy recherche aussi c'est que da partir d'un constat qui tëju la woon nit ñi def recherche chiffres yi di wane seen bopp ñuy xam ne par exemple africains yi ak occidentaux yi bokkuñu ni ñuy répondre ci Covid. Mhm. mais quand je dis africain boo demee Amérique pourtant noir américain yi ñoom faatu nañ ñu bëri ci Covid. obésité moo ko waral. Mhm. donc yooyu yëpp c'est des éléments yoo xam ne tey yenn ñoo xam ne ay anthropologue lañ ñoom ñooy éléments yooyu a ñoo tijji réew mi mais sol leen masque mën na ñëw tijji réew mi mais attention am na beneen Covid buy jóg actuellement en Australie ak yooyu ah. ah. jamono yi may wax ak yow. donc loolu ban retombé lay am si ñun. eh yooyu yëpp dañ ko war a intégré. Mm-hmm. daal di ne palu bi tamit fan lañ toll gis nga gis nga donc niveau de travail yi ñoo bëri. Mm-hmm. mais loolu yëpp collaboration la c'est-à-dire que ne tey jii virologue bi war na nekk en mesure wax ak épidémiologiste bi. Mm-hmm. kooku ne ko mais man Kédougou am naa fa ay information ñu boole affaire yi. ci la ñuy gën a amee doole surtout en Afrique. Mhm. c'est-à-dire que ne dañoo am challenge matériel moyen ak yooyu la cay tegum collaboration rek moo ñu ci mën a génnee. Mhm. wax nga ko ah, wax nga ko Covid bi tax na ñu xam lu bari mais tamit euh, dañuy des ci loolu Covid bi aussi dafa am loo xamante ne dafa mel ni am na lu mu xaw a fësal ci suñu way ko docteurs yi certes am nañu background bi certes am na ressources humaines mais ci ci ci période Covid bi on s'est rencontré que suñu système médical bi quoi qu'on puisse dire am na ci yenn failles xaw ma ci côté recherche bi moom moo doon yéex wala mais en tout état de cause bi ñuy xeex jàngoro bii di mbasum Covid bi mu nekk fi ba léegi te teew dem donte tey ñu ngi wax ay 4 cas ay 3 cas dellu na ginnaaw dañuy ñaan yàlla ñu dem ba am 0 cas mais n'empêche ci côté recherche bi wane na euh, euh, que euh, compétence mu ngi fi mais am na quelque part aussi ay limites. Il y deux éléments loolu. Mhm. benn bi mooy recherche dafa cher. D'accord. beneen bi mooy que ne système sanitaire tamit dafa cher. Mhm. loolu mooy réalité bi ñun nan la ñuy def ba am ay fonds ay concours la ah. ñun dañuy bind ay concours tey jii te kaay ma xamal la dara Afrique y a de grands surtout les anglo-saxons ñooñu dañoo pare. Mhm. parce que système d'éducation yi ñoo bokkul tey jii ñun bu ñuy xëcc financement en anglais lañ koy bindee. parce que normes internationales yi. très bien. donc euh, tey ji boo jàngul anglais ak yooyu nooy bindee nooy ko compétiré. Mhm. ci même niveau boobu nag ñiy décider. noonu la ñuy bindee de gros projets yóbbu ko USAID ñooñu ñëw jàppale leen xam nga tey jii euh, service néphrologie xam nga rein moom foo tourné yaa ngi koy dégg diabète xam nga hypertension genre yooyu mais soxna si on a des ingénieurs ah si si suñu réew mi am nañ boy yu xarañ mm-hmm. boy yoo na leen di responsabiliser ñu defar ay machine ñu essayer xool ndax baax na baaxul mais loolu mooy secret secret développement sax laay wax ci secteur yëpp dañoo war a créer ay ressources humaines ah, mais ci kaw loolu bu leen former ba pare il faut que cette recherche maanaam tey jii oui je cherche la en science mais lan laay def loo xam ne si sama réew la jëm. Mhm. loolu mooy vraie problématique yi actuellement muy ministère de la santé muy ba ca yeneen état wala ba ci chercheurs yi il faut que ñu am une une recherche appliquée maanaam toog ne ok. ñii Covid dal na leen mais nan la ñu réagir par rapport ak Covid yi il s'agit pas d'importer ay système de recherche feneen. Mm-hmm. ñun suñu recherche mën nañ ko defal suñu bopp te mm-hmm. foofu la foofu la àddina toll fi mu toll nii. ñu jagleel leen mesure d'accompagnement. oui c'est ça donc man xam nga je suis pas dans la politique ak affaire yooyu sphère boobu mais am na am na am na ñu koy def ah franchement je vois des subventions si domaine yu ne Sénégal mu ngi màgg. Mm-hmm. tu vois santé nag moom bu taxawul moom day indi benn problème déséquilibre boo xam ne doo mën a avancer. c'est aussi simple moi pense il faut que c'est complexe c'est pas c'est pas complexe parce que suñu santé la suñu santé askan la mais il faut ñu former nit ñi préparer leen ñu mën a indi plus de financement ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gouvernement bi tamit ñu gën a góorgóorlu indi ay financement ci condition yu leer mm-hmm. ñu ànd ceeg nit ñi mm-hmm. voilà d'accord d'accord nga yëngatu ci wàllum recherche Alassane Mbengue nekk chercheur à l'Institut Pasteur euh, tey ñu bëggoon xam euh, boo ñuy wax sa collaboration ak euh, waa Institut Pasteur lan nga ñu ci mën a wax. déjà foofu laay liggéey ah di remercier un ñi fa ne ñëpp wax dëgg yàlla parce que sa fait quatre ans ma ñibbi si mais Amadou Alpha Sall moom xam naa gis nañ ko ci Covid ak yu ni mel mooy sama boss en fait. et puis ci kaw loolu am naa yeneen collègue bu tudd Amy Christine Bey comme collaboration la et puis j'ai mes Fanta aussi euh, ñoom ñëpp ñu ngi seen kër actuellement je pense euh, parce que dañoo marié woog yooyu yëpp yooyu yëpp si recherche la bokk aussi on une famille quoi et donc li ñuy def foofu sama collaboration ak ñoom mooy ñu mettre ma dans un cadre pour que tey yi ñu mën a def justement expérience yooyu ñuy wax am ay autorisation au niveau de la du ministère de la santé dem si ay Covid euh, maanaam kee Kédougou dem ci yeneen régions yi jéem gëstu ji foofu donc ñoom support boobu ak cadre boobu la ñuy tegal man si sama bopp man Alassane ma décidé ne ne community engagement je le dis de façon officielle mm-hmm. loolu laay def parce que sama xam-xam bi ma koy ñaan suñu borom dama ne woon na doon xam-xam bu bën mm-hmm. eh bien waaw fi ma toll nii mooy que a xam-xam boo xam ne dama koy jagleel sama askan te si loolu laay dox ci année yi di ñëw incha allah euh, wax nga ko wax nga ko Alassane euh, nga nekk euh, institut Pasteur quatre ans tey ci quatre ans yooyu xam naa ne yaa ngi def jàpp naa ne aussi tu as eu à euh, les régions du Sénégal voyager nga fi un partout tey boo ñu doon defal benn taxaw benn benn petite évaluation euh, par rapport ak sa quatre ans yi ak sa par rapport ak sa tournée yi lan nga ñu ci mën a wax. waaw sant yàlla ci say quatre ans yi bi ma ñëwee li ma njëkk def mooy que ne man maa jël sama oto def les quatorze régions au Sénégal xool les les les médecins de région ñii gis naa leen ñii gisuma leen MCD yi xool bàjjenu gox yi xool euh, ba ci infirmières yi. parce que système boobu pour man bu ma ko xamul woon ce serait très difficile ma mettre fii en place quelque chose mm. loolu sama initiative la woon ci kaw loolu nag laa am un financement boo xam ne Londres laa ko jëlee je travaille avec les anglais si loolu et foofu li ñu waroon def mooy que ne dem jëli parasites yooyu nga xam ne ñoom ñooy joxe paludisme mm-hmm. d'une personne à l'autre loolu Kédougou laa ko gënoon concentré mm-hmm. et donc la ca xew mooy que ne instant yi ñu ngi analyser chaque parasite jéem a xool ndax moom mu ngi évoluer pour am résistance par rapport ak molécules yi ñuy naan mooy mm-hmm. artémisinine bi bi ou pas donc si loolu laa nekk actuellement donc sama collaboration ak pasteur di aussi sama collaboration ak ak médecin chef yi ak ak ak population bi donc euh, pendant quatre ans c'était pas c'est pas facile c'est pas gagné mais euh, dama jël sama sama dama tey jéem a xool sama sama xam-xam fan laa war a man a jaaree pour encore une fois am am am objectif yu clair par rapport aux populations te loolu laa nekk ba tey c'est-à-dire que ne recherche aussi waaw chaque jour nga jàng lu bees chaque jour nga observer lu bees mais chaque jour aussi nga def ay hypothèses yu bees léegi nag la grosse question mooy est-ce que di nga am les moyens pour répondre à ces questions là te recherche tamit dafa xaw a gaaw tamit. Mhm. donc tey jii am benn question scientifique toog deux ans ne dama koy répondre entre temps. le monde évolue. même le monde nag micro-organisme. moo ci raw mhm. micro-organisme yi soxna Fatou dañoo doy waar ils sont ils sont ils boo xam ne jéggi na dayo mhm. te booy xool nag xam nga ci ñoom même ngay gis les micro-organismes mais sont juste extraordinaires mm-hmm. léegi nag xeex la rek ñun tamit on est des humains extraordinaires mais est-ce qu'on a les moyens ak les ressources mm-hmm. de faire cette euh, cette recherche extraordinaire pour nekk au point mën a défendre suñu bopp mm-hmm. loolu mooy question yi nga xam ne moom ci laay yëngu chaque jour nag et puis euh, voilà sant yàlla quand même euh, faire toutes les régions du Sénégal xam naa avec tes propres moyens je suppose que nekkul woon lu yomb naka nga def ba peut-être euh, même boo amoo ci lépp lépp mais am nga ci quelque part benn sentiment de satisfaction ndax am nga loo apporter la population mais yow en retour am nga loo ci jàng waaw man li ma ci jàng sax laay waxagoon pour l'instant parce que c'était c'était c'était simple j'ai écrit une lettre à tous les médecins chefs woo leen ñii ne ma ñëwal ñii ne ma amuñu jot c'est pas grave mais teewul dinaa jaar ci région boobu xool fa dara tu vois et ouais j'étais heureux de parcourir mon que nit nit ki lépp looy def boo ko contextualiser wul tey jii day difficile nga am impact. donc loolu laa njëkk a commencé et puis sant yàlla ça c'est très bien parce que des amis qui sont médecins chefs de région district ñu may appuyer aussi même bu fekkee amaguma chance job ak ñoom actuellement. Mhm. mais idée bi lool la woon c'est-à-dire de préparer le terrain pour mën a am mobiliser ay fonds pour mën a jegewaat encore ñooñu di leen appuyer ci euh, seen liggéey. Mhm. donc euh, pour répondre je remercie ñi ma jàppale ñëpp. Mhm. mais euh, c' est que le début ñu ngi continuer jéem a xool na lañ mobiliser yeneen fonds mais gën a jege suñu population. Mhm. parce que voilà ñoom ñooy nëwu guerre bi mais nëwu guerre bi tamit mooy ut finance yi aussi. d' accord mu mel ni finance bi dafay dëgër euh, des fois euh, dañuy des ba léegi ci wàllu woowu par rapport ak sa tournée yi nga def ci région yi xam nañ ko le Sénégal ne se limite pas à Dakar boo jógee Dakar dem ci peut fu mel ni Tamba Kédougou Matam approche bi avec la population euh, ndax dafa bokk ak euh, approche bi euh, approche bi ak population boobu comment est-ce que ça s'est passé. mënul bokk on parle de la capitale où les gens xam nga ñu ngi seetaan télé ñu ngi xam yenn affaires yi capitale lañu wax. mais beneen affaire boo génnee Thiès bi sax Kédougou sax sori na nit ñi beneen réalité beneen monde lañ nekk. Mm-hmm. et d'autant plus que ñu ngi wax waxi wér gu yaram est-ce que ñoom tey jii ku xam ne par exemple Mhm. question yu mel noonu fii ba Kédougou par exemple boo accidenté manqué de sang fan ngay jëlee poste de champ sang gis na question yooyu moo important man man ci loolu laay yëngu jamono yi c'est-à-dire que ne jéem a réfléchir ak d'autres gars mënoo def lépp moom mhm. mais lu ci ne nag am na waaye boo xam ne moom mu ngi ciy def ay jéego yu bëri mhm. donc dajale suñuy force mais perception de la maladie la may indiwaat rek c'est-à-dire que tey jii yow ni ngay gisee jàngoro bi parce que ça fait des années ngay def SOS santé. Mhm. am na lu bëri loo jàng ba booy poser question sax xam naa fa nga voilà njort nañ fa ngay dem. mais noonu la war a demee soxna Fatou. voilà dafa war a gaaw. Mhm. <laughs> dafa war a gaaw mais loolu yëpp nag xam-xam la traduction si lang yi jege nit ñi loolu du ñun rek ñoo koy def ah. c'est exactement te chaine boobu nag lu ci dagg rek da koy gis feneen. répéter exactement donc mais nit ñi nekk si àll bi soxna si <laughs> sonn nañ ah. waaye mm-hmm. sonn nañ si c'est c'est un fait c'est que voilà des fois tu tu je je réfléchis souvent tamit ci affaire où euh, tu vois santé digitale ak yu ni mel yoo xam ne war na mën a gaawal tey jii mais pareil nan nga koy tegee en place kan mooy gérer donne yooyu ministère de la santé la war a doon tu waa xam naa ne am nañ section bu tudd e-santé mm-hmm. donc man actuellement li may def yamul rek ci payaas xool kii feebar na ak feebarul yooyu yëpp lalu eh bien nit ñi dañ ma naan dafa bëri mais man je waaye je le fais avec beaucoup de plaisir avec beaucoup de fierté parce que fii sama réew la te voilà sama xam-xam fii lay jariñ mhm. voilà mhm. Euh, wax nga ko euh, Thiès rek euh, nga ne so soriwul bon mu mel ni à chaque fois dañuy prôner la santé pour tous alors que même bu fi ressources humaines yi nekkee maanaam infrastructure yi tamit nekk nañ ci mais li koy accompagner mooy mooy mooy mooy compliqué la wax nga ko dañuy am yenn feebar yi mais dañuy obligé rabat Trou ba Dakar pour mën a def yenn diagnostic yi wala yenn analyse yi euh, wala yenn bilan yi aussi foofu tamit ndax euh, xaw ñu fa dellu tuuti tuuti tuuti euh, ginnaaw ndax bu fekkente ne dialyse la ñu war a def nga war a jóge Saint-Louis ba Dakar distance bi sax amaana ma yàlla xam doy na yoon yaa a gën a comprendre mooy nga ñëwaat fi fekkaat fi encore benn kër tey rek contexte boobu aussi ndax jàppaloo ne vraiment avec tout ce qui c'est tout ce qui est en de se dire ci dooleel fësal waaye jàppale wér-gu-yaram bi des na. man moo tax man éducation tamit lu ma intéressé la. c'est-à-dire que ne xam euh, nga affaire bi souvent du dellu ginnaaw sax c'est que dañoo defagul dara. yi ci bëri dañoo defagul dara voilà moi je trouve que ne moo tax nag éducation foofu la important c'est à dire que ne les jeunes qui ont seize ans ñooñu la ñu war a préparer ñu xam job yooyu xam les vraies problématiques école ba tamit boo fa demee mën nga tey jii ñu expliquer la loo xam ne man par exemple ça me plaisir d'aller dans les écoles et de ce que je fais ah. on sait jamais kenn mën na ko intéressé kooku mën na doon sax sama étudiant ëllëg wala mu li ñu mën a def instant yi mais lan lañ mën a préparer wu pour année yi di ñëw mm-hmm. parce que système de santé aussi mënoo xëy rek changer lépp on est d'accord c'est c'est costaud tu dafa am yeneen euh, problématique yoo xam ne comme je te dis c'est à l'échelle communautaire ba ci chef de quartier bi dafa am rôle ci santé mm-hmm. parce que tey jii souvent chef de quartier koo xam ne la bu waxee tey jii ñëpp dinañ ko déglu mm. mais man en tant que chercheur bu ma jógee Dakar wàcc ak donc yooyu te pourtant sénégalais yooyu yëpp très très important mais xam naa ne ku mel ni ay institut Pasteur ñu ngi xalaat xam nga ak Amadou am ay post feneen et puis Pasteur institution sénégalaise la aussi ah. bëgg nit ñi fàtte loolu c' est que nit ñi ñun ñu ngi job ay sénégalais ñoo ko yor et puis euh, même si c' en partenariat ak France tey jii ñu ci ëpp ay sénégalais lañ. Mhm. et ñun ñu ngi def suñu gëm de laay kattan tu vois ak toujours ak commande boss bi xam nga mettre en place des choses la recherche coûte extrêmement cher. Mhm. le système sanitaire laay wax su boobaa donc du coup c'est un c'est un ensemble. Mm-hmm. le système euh, sanitaire coûte extrêmement cher balaa nga ko doon xam nga tase kenn koo xamante ne dafa génn euh, CTO wala génn ci benn structure hospitalière mm-hmm. ma foi bu la waxee ticket consultation bi moom da ngay waaru bu la waxee ordonnance ñu koy prescrire nag euh, tu te kii fan lay jëlee lii te il est obligé mu góorgóorlu à défaut mu toog këram naan paracétamol wala jël ay antalgiques yoo xamante dafay soulager douleur. valeuram ba keroog xëy na yàlla di ko ubbil buntu wërsëg euh, édifié nga ñu ah ci benn aspect tu as insisté sur le fait que Institut Pasteur euh, c'est vrai que Euh, dañuy liggéey ak euh, les français mais ñu bëri dañuy jàpp ne peut-être euh, que c'est une institution la française gérée par des français mais heureusement que wax nga ko y a des sénégalais yoo xamante ne ñu ngi fay liggéey ñu ngi indi seen expérience di def tamit ay ay recherche yu mucc ayib ba tey ji yow nga indi sa sa touche particulière justement par rapport ak ni institut bi di doxee. waaw waaw non mais il faut il faut il faut connaître ça xam nga parce que dañoo fi ans. ndar la commencé woon après xam nga di màgg ba heure bi euh, donc du coup il faut ñu xam benn affaire depuis dafa changé statut c'est-à-dire que ne 50 pour ñoo ko moom. Mm-hmm. te tey jii ko doxalewul eh, eh, il y trente et quelques instituts Pasteur dans le monde donc ñun suñu boss nag dañoo décidé ne 50 pour doon ça veut dire quoi ça veut dire que ñun ñoo ko yor quoi. Mm-hmm. ñun ñoo koy avancé loo. Mm-hmm. et si loolu laa fekk aussi dynamique boobu laa fekk yu ndaw yi woon ci sous région bi dama ne woon sama réew comme que exactement mais loolu yëpp nag euh, Amadou Alpha Sall moom mooy def job boobu moom mooy dem aller chercher les fonds xam nga teg instant ñu ngi wax sax unité de vaccin mhm. fii donc dëkk yi am habilitation pour def vaccin bëri ñu ah, en mhm. Afrique on a Maroc la Sud Afrique pour l'instant ñun Ghana maa ngi gis tey que ne am nañ autorisation mais am nañ avance boobu au moins mhm. mais suñu élèves yi suñu xam nga biologistes allah donc voilà dynamique boobu lañ nekk et Pasteur c'est sénégalais <laughs> il faut que soit clair dans la tête des gens et stratégie yi def yëpp pour suñu askan la aussi. Mm-hmm. Mm. Euh, mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñu déglu ma fàttali ne yéen ngi déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di daal ki nga xamante ne moom mooy docteur Alassane Mbengue mu nekk chercheur foofu ca institut Pasteur bu Dakar. Dakar euh, dañuy xuus rek ci beneen euh, pàcc waxtaan bi moom nag euh, ginnaaw bi nga xamante ne dafay yëngatu ci lépp lu jëm ci wàllum recherche particulièrement ci recherche domaine bi di paludisme donte xam naa am na ay prédilection par rapport ak yeneen jàngoro yi mais spécifiquement ci paludisme nga nekk initiateur u benn festival bu ñuy duppee askan wi mhm. c'est bien ça ñu bëggoon rek nga xam lekk auditeurs yi festival askan wi lan la wundu Alassane euh, Mbengue. balaa ñuy wax ci festival man j'ai créé un label euh, de musique en fait parce que je suis musicien aussi qui s'appelle euh, Dellu Siwaat Art. d'accord waaw bi ma koy concevoir dama ne woon Dellu Siwaat cosaan quoi. Mhm. mais ci kaw loolu aussi dama ne woon bon ben art culture bi c'est très important comme facteur de développement mais nan laa ko mën a lier ak sama job. Mhm. parce que xam na ne culture moom mooy tax tamit message yi nga xam ne moom la ñu am ci santé mu dox ou pas. Mhm. donc bi loolu la ma dëkk Popenguine aussi. et foofu Mama mooy def région bi kooku ñu ngi xamante Matam justement ba may wër quatorze régions yi moom mooy médecin chef de région bi après docteur Birane Ndiaye moom mooy médecin chef de district donc job boobu tamit dama ko def juste comme ni may joobee di dem ci àll bi di gëstu ci yeneen kii donc fi mu war a jaar yëpp dafa jaar mhm. et avec l'Institut Pasteur ñu ngi doon réfléchir mais ñi may remercier foofu sax c'est pas pour l'instant l'Institut Pasteur mhm. c'est mes partenaires culture euh, madame am na benn soxna bu ñuy wax madame Aïcha Kensi moom fekk projet bi ne ma dama am nañ comptable bu tudd Fatou Boury Guèye kooku sama fu comptable la woon pasteur tey jii mu ngi may jàppale mais fayuma ko. ci mhm. waa loolu nag lañ fekk ne ok comme que loolu la mën nañoo teg benn festival dañ def nañ prélancement bi le 26 mars bi passé. Mhm. mais foofu tamit environnement laa fa wax. parce que man dama gis ne bien-être lépp la. c'est un tout déjà espace bi nga nekk tey jii bu sellee laa dinañ mën a projeté wu pour sa santé. Mhm. mais billet bu ca amee rek maanaam bu bu environnement bi sain wul.

setal projet yi may teg yëpp nag loolu la mhm. c' est à dire que ne nan lañ impliquer les jeunes ñu ñëw fekk ay ay ay initiative téye ko affaire du investissement bi fi mu toll nii du xaalis de investissement bi nit la ak yéene ba nga am ci sa société mhm. donc loolu yëpp ñu koy def di sant yàlla c'est dur parce que bailleurs yi ma doon waxal yëpp ñu ci bëri kenn ñëwul. mais oui mais mais peut-être nee nañ dañuy observer mais man damay liggéey man. xaaruma leen man yàlla laa àndal tu vois donc je le dis avec beaucoup de modestie nag mhm. parce que nit ñi Sénégal actuellement il faut que ñu agrippé wu si quelque chose et puis après dinañ defaat le job nécessaire pour dem waxtaan ak bailleurs yi nga xam ne yéene nañ jàppale si suñu projet mhm. euh, mu mel ni ce festival bi dafa am euh, benn défi aussi boo bëgg lancé yaa ngi wax ne peut-être Sénégal il faut nga jàpp ci dara tey lan mooy expliquer vraiment nga bëgg a euh, recherche bëgg ko associer ak euh, beneen fànn bi muy l'aspect culturel. démb rek sama boss loolu la ma doon laaj. Eh. Eh, ñu bëri ma koy laaj c'est que man pour man affaire bi ñetti élément la. Mm. xam xamale. xam-xamale mooy science bi may def tey jii moo lay jox benn maîtrise bi tu vois te c'est pas hyper compliqué loolu boo ko amee da koy partager ak nit ñi nan nga yan kanoo nga ko mën a partager ak ñi selon toi la culture. Mm-hmm. donc ku may wax naa ma liggéey bi dafa bëri affaire yooyu benn liggéey la. c'est-à-dire que science la xam-xam la nga pàcc nga jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yellool wala ñi mu intéressé et affaire bi mooy que ne via la culture mën nga mobiliser ay nit rapidement mm-hmm. donc ñooñu bu ñu accroché woo si élément forcément da am impact mm-hmm. te job bi yóbbu yëpp nag loolu la quoi cest dire que ne boo nekkee pasteur nga nekk tey hôpital Dantec moi je connais plein de copains yoo xam ne ci ay médecins lañu affaire ils sont forcément impliqués mm-hmm. ak seen vie de société parce que yaa ngi sóor keneen. Mm. donc loolu la quoi c'est-à-dire que ne il faut que actuellement ñu mobiliser wu jël suñuy xam-xam teg ko sur la table et puis euh, comme un ensemble tu vois de une famille sax laay wax. Mm-hmm. ñu jéem a jàppalante. Mm-hmm. donc c'est c'est du social nag wax dëgg yàlla et souvent dans les sociétés capitalistes comme les nôtres la xam nga nit ñi te prend pour un rêveur mais c'est bien possible. Mm-hmm. def nañ ko ci système ci yeneen dëkk yoo xam ne tey jii Sénégal lan moo ci des est-ce que nit ñi sont prêts à nous soutenir sur ça ou pas c'est foofu laa taxaw yooyu am naa ci yaakaar nag et puis di remercier ñi nga xam ne ñoo a jàppale vraiment bëri nañ bëgguma lim kenn mais élèves yi nekk ndaayaan yaa Mm-hmm. ils l'ont fait. Mm-hmm. te loolu mooy sama fierté tey jii. Mm-hmm. sant nga def euh, pré campagne bi euh, le 26 mars bu nu génn xam naa ne ci benn dëkk nga ko defee mais tey jii ndax euh, boo demee ba jamono di dox di nga ko gën a élargir au niveau des régions donte nag c'est un défi ak loo xamante ne je suppose que il faut nga am ci mesure d'accompagnement bu bari sax pour nga mun ci yegg. non mais tu sais projet bi dem na ministère de la santé de la culture tey fa waroon jaar pour jël benn lettre xool ndax dinañu appuyer ou pas donc maa ngi koy jaarale fi ma ko war a jaarale mais xam nga il m'a fallu quatre ans tamit pour teg ko Popenguine d'accord tu vois donc tey jii boo nee da génn rek ci écosystème yaa ngi fàttaliku bi ñu commencé écosystème lañ doon wax uh-huh. environnement boo ko bëggee reproduire à l'échelle like nationale te loolu mooy suñu yéene de tey jii maanaam bu keneen xëyee def ko Kolda keneen xëy def ko Vélingara moi je serais très très heureux à contribuer si ça que mm-hmm. ma contribuer ou pas je serais heureux mm-hmm. donc léegi nan ngay répliquer modèle boobu mooy que investissement bi nga def au niveau local à Popenguine Ndayane mais madame chaque jour damay xëy dugg ci dëkk bi ah di wax ak gars yi mm-hmm. xam nga pour mobiliser leen des fois mu jàll souvent du jàll parce que comprendre guñu loolu et eh bien noonu la ko keneen mënee defaat Kolda keneen def ko Saint-Louis xam te am na sax initiative yu bëri yu am Sénégal ah euh, les sages-femmes au Sénégal ñu ngi def benn phénoménal euh, fële par exemple Popenguine am na benn dame bu tudd Florence mais à elle seule elle a fait des tests de du cancer de col de l'utérus de cent cinquante dames à elle seule. waaw xam nga nu ko lijjantee. Mhm. <laughs> mais ya yàkkamti naa dem xool nan lay def quoi te loolu la quoi système de santé kenn warul xaar. àddina sax kenn warul xaar kenn. Mhm. voilà je pense que ne lool la pour ne pas donner de conseil nag ni mais euh, il est temps que africain ñu mobiliser wu sur ay système de santé. xam la lañ ciy wax parce que santé moom dafa xaw a sensible daal. Mhm. voilà te gis nañ problème yi ci am yëpp boo amul moyen bëgg xeex du ñu xaar ba jàngoro ñëw quand mhm. il faut que ñu teel a anticiper wu di wax ak suñu mbokk yi di leen sensibiliser loolu nag mooy waral mooy des fois bàyyi science bi ñu wax ne dama koy bàyyi <laughs> mais yëpp nag tu vois par exemple euh, man li ma xalaat ci lancement boobu provenir revenir à ça diabète lay doon. pardon. diabète voilà léegi donc du ko bu ñu yàlla xéwale woon ñu am 500 tests de diabète mais bu ñuy di feetul y a une équipe d'épidémiologistes yoo xam ne dañuy analyser les résultats. Mm-hmm. le lendemain stand yi may wax c'est pas des stands yes euh, classiques c'est des stands yoo xam ne dañuy wax ak nit ñi. ne leen population bi sur cent personnes ñi ñoo ci am diabète mais suivi bi nan lay demee boobu fekk nañu wax ak médecin chef de région bi wax fekk nañu am autorisation médecin chef très bien donc gis nga festival boo xam ne si fête la mais boo xam ne dafa lalu tamit ci si may liggéeyee. Mhm. c'est-à-dire que ne damay jaar fa ma war a jaar encadré ko mu sérieux et puis après ñu génnee résultat yooyu résultat yooyu tey mën na jariñ euh, euh, ministère de la santé. voilà mën nañ ko taf ci école yi ñu def épidémiologie wu maladie yi xale yi si boppam balaa ñuy egg euh, seconde wala yooyu mën nañ chaque année ñuy xool xoolal seen bopp dem ba xam épidémiologie mooy lan mm-hmm. c'est-à-dire que ne ñaata palu ñoo am Sénégal la moo tax te d'ailleurs loolu lañ bëggoon def dañu bëggoon peindre mais bi yoon ak ay carte yoo xam ne ñun ñoo ko def si suñu recherche mm-hmm. de distribution palu Covid yooyu yëpp ñu ngi ko yoroon waroon ko peinture mais malheureusement amuñu woon moyen pour peindre ko mm-hmm. mais yàlla baax na ndax euh, ndax jàpp ngeen ne benn jour di ngeen mën a Euh, liggéey en collaboration avec euh, ñi nga xamante ñoom ñooy ministère de la santé ak de l'action sociale waaye commencé naa ko euh, yëg nañ projet bi te ñoom tamit maa ngi leen remercier parce que dañ ko gis rek xam nga ne ma ok pour ça léegi nag li des mooy que ne faute de temps normalement 6 7 8 mai la woon mais ak koor gi je pense que ne nit ñi dañuy xaw a fatigué <laughs> donc il va que ñu repousser que ñu waxtaan nag ak ñi ñu war a waxal xool ban date mooy gën et puis voilà euh, bu dul euh, voilà dinañ ko def année bii daal daal di nag jën ci 2023 ba nga xam ne moom lañ bëgg a def nag un truc waaw complet daal. Mhm. voilà euh, kon ngeen jortu ne bu aboutir di am euh, quelque chose de concret. incha allah loolu mooy bi bi parce que mhm. man euh, moom laa lay wax ci njort sànq c'est que à travers festivité bi science laay def. Mhm. ti vois je veux sortir avec des chiffres yoo xam ne dañ koy jël delloo ko ministère ñoom ñu jël ko ñi nga xam ne ñoom ñooy res jabet ak yooyu ñu jël ko yokk ko seen truc donc tey jii bu ko defee Popenguine question bi nga doon laaj pour élargir pour l'instant je dirais non. parce que dafa travail boo xam ne tey bu ñu demoon ba gisee ak yeneen médecins yu yeneen dëkk def s'ils veulent commencer le travail bien sûr on va venir on va les appuyer. Mm-hmm. et la collaboration rek moo mën a doxal système sanitaire ak lépp sax ci àddina. Mm-hmm. voilà. Mm-hmm. Euh, ñu ubbi euh, petite parenthèse balaa ñuy tëj euh, Sénégal malgré tout ce qui se dit dañu mel ni dañu problème de spécialisation wax war a def dialyse wala war a def yenn rajo yi nga obligé ñëw Dakar parce que lan la defar nañ benn euh, infrastructure bu mucc ayib alors que euh, spécialiste bi nekk fi tey am na benn budget bu ñu leen accordé néew na bëri na mais spéc docteurs yi spécialisé wu fii ci Sénégal lim bi dafa néew trop bu weesoo sage-femme yeeg yooyu mais boo jëlee peut-être euh, ñii di ay neurochirurgien yi wala pédopsychiatre yi wala chirurgien dentiste bi lim bi néew na trop te pourtant ñu ngi naan dañu def ay jéego foofu aussi tamit lan nga ñu wax pour. je serais heureux qu'on refasse une autre émission mais bi avec des chiffres quoi. qu'on voit pour ñaata nit la ñu am docteur par exemple. yooyu c'est des données yoo xam ne ça existe ah. exactement hmm. et loolu ça va être déterminant madame mais loolu yëpp xam nga si lu mu ñuy indiwaat c'est que Sénégal il faut comprendre un truc a euh, l'université mais benn système si médecine bu mais bu gars yi sont forts waaye sont très bons ñii ñuy formé fii ils sont excellents. Mm. léegi nag mais maanaam ressources humaines mooy problème bi tey jii. Mm. c'est-à-dire que ne ok ñaata euh, néphrologue lañ am pour une population. pour une population donnée. Mm. yooyu bu ñu ko see ba xam après da lay permettre ñu dem def projection mais projection bi maanaam du commencer boo amee bac de avant ngay am bac la. c'est-à-dire que ne foofu ngay dem exposé le aux jeunes lan mooy possibilité yi tey jii doon na neex yow nga wax ñu sa background ñëw ci benn université ou école Limaamu Laay mhm. leen man fii laa commencé lii laa bëggoon ne mais journaliste laa mujjee ne mais noo def ba nekk journaliste tey jii mais xoolal néphrologue beeg ñoom ñëpp nag noonu la war a demee c'est-à-dire que ne il faut ñu gën a jege xale yi mhm. di jël suñu temps lii émission yi tamit c'est bien que ñu wax li ñuy wax ci olof nit ñi xam li ñuy wax mhm. comme ça ñaaxante la rek ñaaxante la rek tey jii xam nga xale bi bu xamee ne jabet nii lay demee nii lañ koy defee peut-être dina ko wax yaayam. Mm-hmm. kooku dina ko wax rakk tàntam dina ko wax keneen information la rek. aussi information si bu lalu nag ci connaissance bu leer. Mm-hmm. parce qu'on est des scientifiques quoi c'est-à-dire que ne dafa am rigueur ak éthique boo xam ne dafa am ci science loolu tamit lu may réfléchir lu bari la c'est-à-dire que ne échantillon jàmbur ba nga jël. tey jii nooy def pour delloo ko moom résultat am. Mm. il s' il s' agit pas de débarquer quelque part et de jël sang nit ñi daal di dem def say analyse publier sa papier moi je contre ça. Mm-hmm. c' est à dire que ni ñu koy defee mooy que ne dañuy delluwaat ci jàmbur yi. looloo tax nag ma def festival boo xam ne deux jours la dañuy analyser tey ngoon ci épidémiologie ci joxe résultat yi balaa suba ni ku def sa analyse am nga sa résultat. Mm-hmm. nga ñibbeeg sa kër ak sa résultat. Mm-hmm. li ñuy ñaan mooy que ne voilà duñu egg dix pour cent des cas comme am na études yuy wane ne Saint-Louis il y cent des cas de diabète ah. tu vois ça personnes dix dañoo am diabète ci benn koñ. voilà alors que le chiffre yi au Sénégal trois virgule quatre pour cent lay wax. Mm-hmm. lan moo ci am lan mooy différence bi entre Dakar entre Popenguine Popenguine Séeréer ndaayaan loolu mooy suñu liggéey en fait. Mm-hmm. loolu plus maanaam ci seen santé plus nga génère reconnaissance plus muy dox. plus nit ñi di ci sukkandiku ne eh man parasitologue laa bëgg ne wala que gis benn carte ne ok man diabète laa bëgg def mais ça sous-entend benn formation boo xam ne fan lay commencer sa xale yooyu am 16 ans. Mhm. donc man aussi en plus de science bi je je travaille je réfléchis ak yeneen ga yoo xam ne voilà incha allah on va mettre en place un projet euh, au lycée Limamoulaye. Mhm. boo xam ne xam-xamale la aussi. Mhm. tu vois et ci ci pas que si santé rek mais. ci exactement yow sax mën nga ñëw wax wax noo def ba def nekk rajo incha allah <laughs> voilà exactement voilà parce que taskatu xibaar <laughs> avec plaisir Fatou. d'accord euh, euh, docteur Alassane waxtaan wi am na solo échange yi c'était vraiment intéressant euh, gisuñu ne sax heure bi dab nañu mais mu mel ni li ñu tëraloon ci waxtu bi yegg nañ ca. voilà di gërëm nit ñi ñuy déglu aussi parce que sans eux tu vois c' très compliqué li ngeen def parce que rajo moom pour man c' est c' est c' est dafa am doole daal koo dul gis di wax ak moom ah. mais ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen màggal di leen baal wax et puis waaye plaisir ak yow aussi tasewaat si yeneen rendez-vous incha fut un plaisir euh, de vous recevoir ñu dalal euh, si suñu émission bi di SOS santé ma fàttali ne yéen a ngi doon déglu seen émission bi di SOS santé tey nag nekk chercheur euh, foofu ca institut Pasteur bu Dakar euh, fàttali ne émission SOS santé Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekk ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité.